sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulilahi nacbuduhu wa nastaxfiruhu wa nastahdiih wa nacuusu billahi min sururi anfusina wa sayiaati acmalina man yahdi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wasalaatu wasalaamu ala nabiil huda wa rahma sayidina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa taabiina lahum bi ihsaanin ila yawmi din amma baadu ibadallah ittaqu llaha wajtahidu ala ala ittibaai awamirihi wa ijtinaabi nawaahi wa huwa alilahu alwahid alladi yastahiqu an yucbad wa laqad amarakum bi amrin azimin sadara min dalika alisra alxaariqa mimma yadullu ala alahamiya ala wa huwa asalawaatu alxams faqad sadara wujuuha min alsamawati alula yaqulu subhaana wa najmi ida hawa maa dalla saaxibukum wa maa xawa wa maa yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa allamahu shadidul quwa zu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil ala summa dana fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa fa awxa ila abdihi maa awxa fa fi qawlihi subhaanahu wa taala fa awxa ila abdihi maa awxa ibhaamun mimma yadullu ala al ahamiyati wal azama wa li dalika li salaat manzilatun azima fi l islam yaqulu subha yaqulu sallallahu huwa fo wa lidalika li salaat manzilatun azima fi lislaam fa huwa awalan himaadu diin yaqulu subha yaqulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam asalaatu himaadu diin man aqaamaha faqad aqaama diin wa huwa alfardu lwaxid allati yajibu an yuadda maa kulli turuufi walxaalaat inda alxarbi wa inda almarad wa inda safar xilaafan li baqiyati alfaraid al ayniya wa huwa sayiu lwaxid allati yabdau llahu bihi taala xisaab al ahmaal yaqulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam inna awala ma yuxaasabu bihi alxabdu yowma alqiyama alsalaa fa in saluha saluha saluha saairu amali fa in fasudat fasuda saairu amali wa huwa alfardu alwahid allati amarana allahu subhanahu an nuallima biha alawlaad wa an nadribuhum li ajliha yaqulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam allimu awlaadakum asalaata ida balagoo sab'an wadribuhum alayha ida balagoo ashran wa farriqu baynahum fi almadaaji ومن ومن هنا فيجب علينا أن نجاهد النفوس على أدائها على كيفيتها وفي وفي أول وقتها عن ابن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها وإن أداء الصلاة لكفارة من للذنوب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نحرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما ما تقول hal hal dalika yubqi min daranihi shay'an qaalu qaalu laa qaala laa yubqi min daranihi shay qaal fa dalika bisu salawaati alxams yamxu llahu biha alxataaya ayuha ibadallah ittaqu llaha wajtahidu ala adaayi salawaatikum ala awqaatiha wa kayfiyatiha allahuma ahdina ila sawaa'i sabilik waj'alna min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana bokk yi niñ koy defee rek ci bokk di nafaraat ak di bokk di ko ñu seet ñu seetlu ne fat wax xutba yi jàll ñu ngi doon waxtaane li nga xam ne moo tax suñ borom binduñu ak bi bindee li nga xam ne moom la bëgg ci ñun ñu def ko ak li nga xam ne moom la ñu jox ci ay xéewal ak kàttan aku man ak ak sécurité bañ ngir ñu mën a taxawe li nga xam ne moom la bëgg ñu taxawe ko ñu xamoon itam ne suñ borom moom du fay jëf ci kaw waxtu wa waxtu waxtu ya nga ca def du fay jëf ci kaw itam àggu jëf ji waaye mu ngi fayee jëf ci jë na nga jëf ji rek ni lay fayee moo tax moo mu doon koo xam ne ku ndax bu fekkoon da ko aj ci waxtu ay tappale mën na caa am fekkoon ne da koo aj ci aj ci jeexu jëf ji jëf ji mën naa jeex ay tappale am ca waaye na koo aj ci kaw te ni nga ji rek noonu la lay fayee kon mu doon loo xam ne lu am solo la lu mat a bàyyi xel la waaye nag mu mel ni li nga xam ne jëf yi muy ñu jëfloo nag da cee am yoo xam ne yu yu yu yu rëy la ci moom yu mu bàyyi xel te bëgg yitam doomu aadama yi bàyyi ko xel bokk na ca yooyee nag muy julli te julli xam nañ ne ñi ngi ci waxtoom ndax ñi ngi ci weer wi nga xam ne ci la ko suñ borom farataaloon ci jullit ñi julli nag dafa doon loo xam ne lu am solo la lu mat a bàyyi xel la li tax itam mu am solo moo di ne moom suñu borom moo julli mooy jenn farata ji nga xam ne bi ko suñu borom di farataal ci doomu aadama yi yónniwut jibril mu ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko yónniwut jibril mu ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ne suñ borom dafa farataal nangam ci yow bëgg itam farataal ko itam ci nga jotali ko ci jullit yi waaye da ko woo moom ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam mu ñëw mu jox ko farata yi mu jox ko julli kon loolu muy won di nu li nga xam ne moom moo la wàccuwaay bi nga xam ne moom la julli am waaye nag li ci gën a yéeme moo di ne bi mu ko woowee mu ñëw ci moom mu di ñu nettali na yëfe ya jëfe demee itam taxul mu tudd baatub julli dafa wax rek fa ilaa ila abdihi ma awxaa mu doon loo xam ne kon loola da lay daal di xiirtal yi ne loolee mu ko loolee mu nga xam ne moom la ko moom la ko ci tur wi nga xam ne mooy baatub julli fa awxaa ila abdihi ma awxaa rek la wax mu doon kon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la lu gën a nag ci ne julli lu mat a bàyyi xel la lu rëy la bi ci njëkk moo di ne julli mooy fondement bi nga xam ne wala mooy keno bi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne mooy keno bi téye diine képp koo xam ne téye nga ko te nga diine képp koo xam ne bàyyi nga ko itam bàyyi nga diine ñaareel bàyyi nga ci li nga xam ne moo ni woon itam julli ne lu am solo la moo dina julli mooy jenn farata ji nga xam ne du wàcc doomu aadama bu ko xasee war dootu ko wàcc ba mukk moo xam situation bu mu mën a nekk julli da koy war waaye nag loolu noonu li nga xamee noonu mu nekkee doon loo xam ne du wàcc doomu aadama nag noonu itam la ci suñu borom amee yërmande ba kenn ku nekk na nga ko mane rek ak sa tolluwaay ba nga toll noonu nga koy defee kon mu doon loo xam ne dañuy woon yërmande suñu borom ci ci jaam ñi julli itam li ñuy waraan ne it lu am solo la moo dina yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo xamal ne jëf ji suñu borom di njëkk a xool ëllëg ci jëf yi doomu aadama yi defal suñu borom mooy julli bu fekkee ne gis na julli ga tegu fa mu war a tegu mel ne mu war a mel mu bàyyi yeneen yeneen jëf yi du ko xool waaye nag bu fekkee ne jëf ji julliwut rafetul tam yeneen yeneen ya ca des day daal di xam ne munta munta mat ni mu war a mate bokk na ci li nga xam ne moo ne woon itam di julli lu am solo la moo dina mooy lenn li nga xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo xamal ne mooy loo xam ne dañ ci war a bàyyi xel bàyyi bàyyil ko xel itam sunu njaboot ba tax mu ne boo xasee am njaboot ba mu am fukki at danga ko ba am juróom-ñaari at da ko war a di di di jàngal julli di ko xamal nan la ñuy jullee di ànd ak moom ci jàkka ja di de di di di di boo dee julli sa biir kër yi tam nga woo ko ngeen bokk taxaw julli loola kon mu ñuy won ne julli lu am solo la waaye lam ca tegaat moo dina bu xasee am juróom ñaaraat at ci ngay defanteek moom loolu waaye bu xasee am fukki at nag moom day day war a àgg ci nga war a mën a jëflanteeg moom ci bu taxawut julli mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la doonul loo xam ne nag dañ koy wax nii waaye dafa doon loo xam ne jullit su jotee ndigal loo xam ne dafa jóge ci yonante bi sallallahu alayhi wa te ndigal li jóge ci yonante mooy li jóge suñu borom ndax yonante bi doonul loo xam ne doonul kenn koo xam ne day wax loo xam ne da koy wax ci gis-gisu boppam wala mu wax ko ci xam-xam boppam wala mu waxee ko ci sañ-sañu boppam waaye li muy wax lépp ci lu jóge ci suñu borom la kon mu doon loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel la ci njaboot gi nañ taxawu njaboot gi ci bu baax a baax ci di xamal sart yi nga xam ne mooy sart lislaam yi te di leen ci yar di leen ko xamal ndax xam ne responsabilité boo xam ne bu ëllëgee suñu borom dañu ko laaj kon ñu góorgóorlu bu baax a baax ci njaboot gi te bàyyi leen xel ci yar bi bàyyi leen xel ci jàngal leen lislaam bàyyi leen xel ci yar leen ci lislaam bàyyi leen xel ci won leen lan mooy lislaam beneen bi ci dëgg waat sam ci li ñuy war ne julli lu am solo la moo di ne yonante bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne julli day day day bokk na ci li nga xam ne day far ay bàkkaar mu misaalee ñu ko ci ne mi ngi mel ni rek ko amoon ak dex ci sa buntu kër bis bu set nga sangu ca juróomi yoon ndax da jàppati na sa yaram benn salte dana ci nekkati ñu ne ko loolu day bunta nekkati ndax ku sangu juróom yor juróomi yoon ci bis bi jàpp nañ ne maanaam salte wala moo doon tudd mën a nekk ci sa yaram mu ne nag loolu nag mi ngi mel ni comme julli boo ko dee taxawee itam day mel ni bis da ci bis bi da nga ci da nga ci sangu juróom yoon bu ko defee nag benn bàkkaar dootu des ci yow mu doon kon lu mat a bàyyi xel ba tey beneen bi ci teguwaat ci li nga xam ne moo nay wan ne julli lu am solo la moo di ne yonent bi sallallahu alayhi ci li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Mas'ud da koo mas a laaj ne ko jëf yi ñuy jëfal suñu borom ban jëf nga jàpp ne moo ci ëpp solo mu ne ko day jëf ji ëpp solo ci li ñuy jëfal suñu borom moo di nga julli ci waxtoom kon mu doon ba tey lu ñu wan ne julli lu mat a bàyyi xel la kon mu doon loo xam ne itam lu mat lu mat a sonne la ñu xam ne itam julli dañ du ne da nga koy defee ci sa sago du ne da koy defee ni nga ko gisee du ne da nga koy defee ni mu la neexee waaye da koy defee ni nga xam ne ni la ñu ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax dafa waxal boppam ne bu ngeen bëggee julli day na ngeen jullee ni ngeen ma gisee may julli kon mu mel ni kon faw dañ koy defee ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggee ci ni ni nga xam ne nañ ko suñ yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale kon li nga li li ñu war a góorgóorloo moo di ne nañu góorgóorlu ci di jooxe waxtu yu julli ci ci ci waxtoom te di ko taxawee itam ni nga xam ne ci melokaan wi nga xam ne ni lañ ko yonante bi sallallahu alayhi wa jàngale yàlla nañu yàlla dimbale ñu bokk ci ñi nga xam ne yàlla dana leen gindi jëmale leen ci yoon wa nga xam ne moom mooy yoon wi mu tànn te bokkal ni boo leen ci ñi nga xam ne itam buñ déggee wax danañ jéem a topp la ca gën a rafet loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla ko defal di delluwaat nag di tàllal suñuy loxo di ñaan suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom kattan tey borom ak man mu jox sëñ Cheikh Mamadou Mountakha kattan ak wér ak tal ba lépp loo xam ne yéene na koo defal lislaam ci loolu sëñ Tuubaa mu def ko ci defin wu kawe njottam tañ ànd kook moom képp koy jullit itam te li lii sa itte mooy lislaam yàlla jàppale la ca loolee ba nga def ko itam nu kawe sa jot yàlla nañu suñu borom taxawul boppam yàlla nañu suñu borom sàmmal boppam yàlla nañu suñu borom dimbale ba nga xam ne li nga xam ne moom la ñu digal duñ gis lu dul moom duñ bàyyi xel lu dul moom duñ def itam lu dul moom loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañu ko defal yàlla nañu suñu borom jéggal yàlla nañu suñu borom xool ci suñu matadi te xool nu ci te te te jëflanteeg ñun ci ci ak matam moom xam na ne ñun ñu matadi la waaye moom ku mat la suñ matadi googee nag moom mi mat yàlla nañu ko mat mata mot matalal ba mu mat sëkk ba lépp loo xam ne li ñu ko defal dana ko dana ko dana dana dana mel nu kawe nu kawe suñ jot dana mel noo xam ne na la ko suñ borom bëggee loolu suñ borom man na ko yàlla nañu ko defal ñi ngi jégglu suñ borom nag di jégglu doomi aadama yëpp di ñaan suñ borom mu wàcce jàmm ak xéewal te musul nu ci balaay ak ndog yi yi nga xam ne moom moom moo koy bu ko wàccee kenn mënu ca dara pour ndax moom ndax moom ma ko moom ma ko wàcce rek moo ci mën dara kon moom moomee di ko wàcce nag yàlla nañu ci na ci bëtub yërmandeem ba bañ ba musul nu ca loolee sàmm nu ca ba dara duñ ca jot loolu suñu borom mën na ko jàpp nu yàlla na ko defal rabbana laa tusi xulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم sëriñ bi da sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal